lo duñ len koy présenter mi ngi amal ren gi di ñaarelu édition bi euh, gis nañ mbooloo mi tew nañ fi gis nañ fi itam ci suba ci ay bernde yu bare bari asgandel ñu ngi lay nuyu bàyyi la nga nuyu ak mbokk téléspectateurs yi bu ko défé ñu tambali waxtan waaw jërëjëf ñu ngi len di ziar di len nuyu bu baaxa a baax di len bëggé di am mbékté bu wéré a wér di len sante té di len gërëm di len ñaanal yalla tew gi nga xamné tew ngeen fi ak mboolem presse bu Sénégal ñi agsi ñi agsi ak ñi agsi gul yëpp di ziar ñëpp di leen sant di leen gërëm di sant sénégalais yi ak waa Touba teewal gi nga xam ne teewal nañu ko ci bis bi nga xam ne suñu bisu bopp la ñu bisu bu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waaye di ci am mbégte bu baax a baax a baax a baax di la ziar di ziare sa naataango bi nga dendal jërë ngeen jëf macha allah jërëjëf si ngeen ñu gis nga taxawal bés bu toll nii def ko bésu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lan moo waral loolu. waaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam buñ ko wootelee yaakaar naa question bi sax buñ ñu ko laajee mën naa oyof mën naa yomb ndax ku ne xam na diggante Cheikhul Khadim ak rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ñun ñuy ay taalibey Serigne Touba suñ lépp it di Serigne Touba ñu jox ko Serigne Touba. bu ñu wootee bisub yonent bi mënuñu koo def fenn fu dul ci dëkkam bu tedd bi dëkkam bu màgg bi di Touba. bi ñu amee initiative bi itam euh, ñu jël ko dippee ko rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam li tax ñu def ko du lenn kese mooy lan mooy yonente bi sëriñ bi da koo jox léppam damaa gëm ne sëñ Touba sargal yonente bi moo ko gënal sargal ko moom ndax lii bir na ma ne tey mbegum sëriñ bi la waaye mbégum taalibe la waaye mbégum umma islamique bi yëpp la beneen ba ca gaydel sénégalais yëpp ko bëgg du murit du tiijaan du xaadir ba ci catholique yi ñëpp dañuy bëggee jëmm ji kon bu ñuy def dañuy def loo xam ne ñëpp dinañ ci mën a gis seen bopp macha allah rabbi loolu rek moo tax a jug bis bi ngir ndokkeel ci sangu ah, madina bi moom sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam macha allah jërëjëf suñu gayndeel mhm. bi moy ñaareelu édition bi ñu gis ni programme bi démé mhm. ndax da nga am ñu lay jappalé ci bëss bi mhm. gis nañ fi ay petit déjeuner royal yu am solo loolu yow yaak financé wala dafa am <laughs> da nga am daayira wala ñu dem <laughs> waaw loolu mom ah, ñun moom dama wax ne nit bo woté bis ya ci ya ci ñëk bala kenn di ci ñëw waaw ñun mom bala woté bis ya ci ñëk bala kenn di ci ñëw ah, ndax ah, ñun ni nit ñi bëggé lu baax non lañ bëggé lu baax ni nit ñi soppé lu baax non lañ soppé lu baax suñu alal ci njëkk dem ñoo yëkkati suñu financement def ci ak ay njàpp ndal yo xamné yaakaarna ñu ngi ci bi ci njëkk moy gis ngeen Serigne Abdou Samad nak wu am solo wi nga xamné ne nañu ko suñu baay suñu Serigne suñu xarit man jàpp gi dama yëm mom Serigne Abdou Samad taxaway bi dama yëm tofel gi dama yëm amana du yag dara di ngeen ko gis ci bërepp bi waye day kenn ci ñun ñu lool yalla xamna ko parfois damay toñ nañ ma xamna yow mom sa tank bi da gaaw dinaa xool noo xam ne damay wut fexe ba nga jege ma nga xam ne dootoo ma sori ngir cofeel gi nga xam ne ëmbal nañu ko te ñuy ay taalibeem di doomam muy suñu sëriñ waaye oyof gi lépp lu ñu nekk rek mu nekk ca daaw indi na nag ren gis ngeen nag wi nga xam ne indi na ko fi yaakaar naa nag woowu rek bu fi nekkoon doy na kon yaakaar naa ne moom it ñu ngi koy sant waaye di sant ñi nga xam ne it gis ngeen ne bis bi dippee nañ leen ko ku ci mel ne Cheikh Oumar Bara Sarr xam ne daaw moo bokk ci ñu ko dippee woon ren moom moom lañ ko dippee moom Cheikh Oumar ndax moom it suñu xarit di suñu wëllëre ndax dañuy sàmm kóllëre gi ak taxawaay bi mu am ci suñu jëmm ji liggéey bu am solo bi nga xam ñu ko def lu ñu nekk rek ma nga ca taxawaay lépp lu ñu dugg rek Cheikh Omar kenn du ko ca jiitu kon kooku buñ ko woowee ci bis bi it woo nañ ci kiñ ci war a woo waaye it bu ñu gisee it soxna Bousso gay nga xam ne moom it suñu suñu mag la boo gisee entre famille la sama mag la moo tax ma jël ko dara jaale ko bis bi parce que dañuy wax ne ak mbokk moo gën lépp nit boo demee ci mbokki jàmbur bis dina ñëw ñuy waxtaanee loo xam ne doo ca mën a bokk dañ naan la génnal mbokk yooyu waxtaan kon say mbokk mënoo leen a sori kon euh, Bousso day suñu mag waaye da suñu xarit mën naa wax ne moom may wàcceel soxna kon kooku su ma ko jëlee dara jàllee ko bis bi muy ku jigéen ki yaakaar naa kon loolu wàcc nañ ak ñi nga xam ne ñoom lañ ci àndal soxna Adja Sarr ñoom Max Fassane Maguette Ndiaye euh, ñi nga xam ne ñu ngi si jàpp soxna Kolle maa ngi koy sant moom it def na ci ay xéewal yu bëree bëree bari moom soxna Kolle di di leen sant waaw mën naa wax ne su ma limee sax dinaa jum mais am na ñoo xam ne saa yu gaydeel duggee ñu jóg saa yu gaydel taxawee ñu taxaw yàlla xam na ne ma man mën a leen damay def rek la ñuy xaar ñu def ci seen doole def ci seen kattan def ci seen man-man def ci seen am-am te defaluma leen lu tax ñu war koo def ko ak organisation bi nga xam ne gis nga ko waa koñ bi nga xam ne taxawaay bi ci am ñuy samay xarit ñoom laa doon àndal bu leen neexoon ñu ne kii ñoo màggandoo am na loo xam ne dañ ko ko defal waaye tey dañoo wàccee lépp maanaam ànd taxawaay boo xam ne taxawaay bu rafet la euh, mbir yi daal euh, noonu la demee soxna Adja Sarr man maa ngi koy sant moom it gis ngeen ko moo yor wàllu wàllu dressé bi jugee ba Dakar ak ñi nga xam ne suñuy gan lañ jugee ci dëkk yu feccanti ko ñi ngi ñew ñi accès ñi ñi ngi fi amna ño xamne dem ba légui ñi ngi fi duggé ci dëkk yu sori yalla xamna ko ngir bis bi kon lolu sant rek la ma sha Allah gis nañ après lék nañ biñu ñu xeyé hmm. donc lan mo top ci programme bi waaw li top ci programme bi xamna euh, comme que sille sille yi ak jaxata jaxata yi barkel nañ ci ndekki yi ma sha Allah dañuy bayyi ba ci kanam rek bu ko défé ñu mëna euh, taxawu añi ma sha Allah bu ñu jugé ci añi yitim insha Allah dinañ fa def yenn xeetu mbir yoo xam ne ci ngoon gi lu mel ne genre xeetu ndoganal incha allah bu ko defee bu guddi gi jotee rek ñu ñu yaatal ko comme nañ ko daan defee reer yu baax rek bu ko defee sili si lay mën cee xewlu cérémonie bi daal di daal di tabbi kilifa yi agsi incha allahu rabbi man ngay del maa nar a waxtaan ren waxtaan bi. incha allahu rabbi waxtaan boobu. Mhm. lan mooy sa thème tey jii. Euh, patience gis nañ fi réew mi toll. Mhm. waaw xam nga réew mi fi mu toll damaa gëm ne waxtaanee ashabru dara gënu koo kawe. ndax ndaw ñi sonn nañ gis ngeen jamono yi fi xewoon ñee jaar ci gaal yi ñee jaar fee ñee jaar fee alors que lan moo ko waral mooy coonay àdduna xat-xati àddina tar-tari àddina alors que ne euh, nit ak lu mën a doon war nga góor góorgóorlu ci taxaw jaayante sa diggante ak sa bopp sa diggante ak sa borom te nangoo muñ li may wax ne muñ bu doon garab la gaañ kàttan gi mooy muñ fekk ne ci sa biir xol ay dunni rangoñ mi ngi fa nga téye ko ànd ak dëgër ngir yol wajhillahi taala ku la tooñ nga jéggal ko am reconnaissance su di baale loolu dafa am solo loolu mooy thème ren bi incha allahu rabbi mooy muñ ak mooy waaw muñ muy muñ boo tubaab moom muñ lay woowee patience mooy toog xaar nga xam ne lu mën a am rek nga toog xaar xam nga àdduna nit bu mënul muñ lu mën a réussir dara parce que parfois nga dugg dara mu metti lan mooy tax nga mën a atteindre objectif bi mooy nga xaar la cay metti pour neex neex bi mën a ñëw macha allah mhm. euh, xam naa du ñàkk ci waxtaan yu mel nii bu fekkee dajale nga lu tolloog euh, fukki nit sax mën naa ko wax mhm. du ñàkk nga waxtaan ak ñoom ci tolluwaayu mi ndax gis nañ coowul politique bi ñu génne. ndax doo am tamit loo ci laal fii. waaw ah Sénégal moom yàgg na mbirum politique. Euh, damay wax ne rek président bu bees bi nga xam ne moo fi nekk nañ ko may euh, batma may ko maanaam tuuti mu liggéey parce que soo xoolee fi ne Sénégal euh, dañ lay fal waaye duñ la gunge. Basirou mënul ñëw même pas un mois mu bëgg a defal réew mi. réew mi mënul baax ci deux ans mënul baax. ci trois 300 il faut dañuy def ndànk pour ñu mën a atteindre objectif bi ba pare aussi da ngay gis ne yenn genre xeetu sabotage yi ak diabolisé gi amul solo euh, ginnaaw moom la ñu fal carte yi ci moom la ëppee na ñëpp àndandoo maase jàppale ko ngir mu liggéey li mu bëgg liggéey ci réewum Sénégal waaye su nekkee ne ku ci nekk rek yaa ngi xool noo jëbalisee gis nga da ngay gis yenn yenn yoo xam ne wala yenn commentaire yoo xam ne Basirou jaar na fee waa Pastef def nañ dara waa nangam alors que loolu amul pour lan pour diaboliser pour diaboliser euh, te gis nañ jéego yi nga xam ne bi mu toogee taxawal na ko ñii ngi naan du dem ci kër kilifa diine yi gis ngeen taxawaay bi mu am ci kilifa diine yi gis ngeen taxawaay bi nga xam ne am na ko ci Touba andi ndox mi surtout ndox mi nga xam ne ñun waa Touba dañ koo soxla ndox mu neex mi nañ ko dinañ ko indi ak àndoon na kii bi euh, euh, inondation bi nga xam ne mu ngi ci euh, euh, euh, fii nii dëkk bi loolu yëpp ngeen gis taxawaay bi nga xam ne am na ko ci moom Serigne Bassirou kon yaakaar naa ne su nekkee ne mi ngi dox jéego yooyu fupp fu mu dem itam gis ngeen taalibee taalibe gam fay wane bi mu duggee ci kër sañ Touba gi solul sax ay dàll yar bi kersa gi Bassirou boo ko xoolee da gis ci moom yar boo ko xoolee da ngay gis ci moom kersa boo ko xoolee da ngay gis ci moo xam ne bëggul nguur dara fëkk ko dara yëkkatiw ko ku dal la ku teey la ku am ku ku ku am reconnaissance la ndax reconnaissance weesuwul lii mu def na parce que bari na ñoo xam ne nit yàgg na leen a jàppale fal leen ñu war ko waaye gis nga taxawaay bi mu am ci Ousmane Sonko kon basirou man amna yakar ci mom gis na gouvernement bi taxaway bi nga xamne am nañ euh, ministre de la culture gis ngeen euh, gis ngeen taxaway bi mu am mi ngi dem ci mbay mi di xol suñu ressources naturelles yi te loolu dañ ko manki won aussi ku jégué population bi jégué askan bi jégué sénégalais yi di waxtaan ak ñom gis ngeen fofu yépp dem na fa ministre bu melni Abdourahmane Diouf dama ko estimé ngir xam-xamam yaram ak tegginam ak dalam ak mën liggéeyam Moustapha Guirassy gis ngeen ko El malik ndjay ministre bi ma ci gën a neex mooy biram Diop ministre des forces da ministre des forces armées nga xam ne kooku dama ko yàgg xam bokk na ci ñi ma gënoon a métti bi ñu leen éliminé ci état bi parce que dafa nekkoon koo xam ne armée dañ ko soxla woon ci liggéey bu am solo boobu nga xam ne da leen ko doon defal loolu daal laa ciy gis macha allah. ngay ne ci kanam tuuti mën nañ xaar ay autorité kilifa. incha allah ci yi nga xam ne yéen a amee liggéey bi ngay yëng. waaw dinañ fi gis ay autorités yu bari yoo xam ne dinañ jugee dakaar incha allah dinañ fi gis itam incha allah rabbi eh, ay kilifa diine yoo xam ne dinañ fi ñëw wax naa leen ko sama baay Cheikh Abdou Samad yaakaar naa ci kanam tuuti amaana di ngeen ko fi gis incha allah ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne di ngeen fi gis samay xarit am nañ ci ay invité d'honneur eh, yaakaar naa délégation yu bari ñu ngi commencé waaj ngir ñëw am na ñu may woo léegi ne ma ñoom ñu ngi ci yoon bi ngir départ ak yeneen eh, délégation yoo xam ne incha allah rabbi dinañ teew ak suñu tuddee bi Cheikh Oumar moom ak délégation am soxna délégation ak yeneen délégation yi nga xam ne ñu ngi ñëw Cheikh Ibrahima kenn bonul délégation ñoom madame Ba seen délégation ak Cheikh Makhtar Mbaye moom it ci yi la bokk ànd ak ay autorités yu bari fas yéene jóge Dakar ngir ñëw ci bisub Sayyiduna Muhammad bi sallallahu alayhi wa sallam ak sama xarit yi nag waa Touba am na ñoo xam ne xaw ma leen ñi ngi ñëw xamuñu sax fu kër Gaydel nekk mosuñu ko dégg dañoo dégg bis bi rek am na ñoo xam ne ba léegi ngi ñëw di la woo fan la kër gi toll fan la nangam bi toll ñoo ñëw ba ci apta bi sax laajte kër gi yónni sax sa numéro loolu la maa ngi leen di sant bu baax a ñu ngi lay sant sëñ Gaynde waaw bàyyi la rek. waaw ki nga kàddu jàll. maa ngi leen di waaw. Euh, bu ko defee sa xel daj ko nga mën maa ngi sant yàlla bu baax di ko gërëmaat di ko santaat di ko gërëmaat di santaat yàlla di ko gërëmaat man moom yàlla li may wax rek man desaluma dara bi ma juddoo mu def ma ab jullit boole ma ci njabootuk sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam boole ma ci njabootuk xaadimul rasul man loolu doy na ma euh, damay wax ne man yàlla am am man maa ko amal njukkeel man moom suñu borom subhanahu wa taala man maa ko amal njukkeel waaw moom mu neex ko dama koy sant mu naqari ko dama koy sant man bëgg naa ko man suñu borom bëgg naa ko ba xam ba mu ne sax man biir na ma ne xam na ne man bëgg naa ko bëgg naa ko damaa jéggi entre yàllaa ma bind moom a moom waaye dafa am beneen connexion bu am moom waaw man boo xam ne man damaa sopp suñu borom damaa bëgg suñu borom maanaam dama koo kennal te dama ko wóolu yàlla xam na ne samay mbir dama ko cee doyloo ndax moo ma sàkk mooma moom lu ko neex ci man mooy am lu ko neexul ci man du am bu ñëpp taxawoon ne lii day am te du am te neexul yàlla loolu du am man yàlla rek laa yaakaar kon maa ngi koy santaat di ko gërëm moom suñu borom maa ngi koy santaat di ko gërëm maa ngi koy santaat di ko gërëm macha allah rabbi jërëjëf sëñ Dodo sant nañ am nañu mbégte waaw yàlla yàlla barkeel amiin amiin macha allah waaleykum salaam waaw ñu ngi leen di siyaare baax di leen di siyaare di leen ñaanal jàmm ak tawfeex di ni ñi nga xamante ni nii biñ dooree liggéey ba léegi ñoo ngi ànd ak ñun ci liggéey bi di nuyu soppee sëñ Mbàkke Lo Gaydel yëpp waaye di nuyu bépp taalibe bo xamante ni yang yaa ngi dégg suñu yang wala yaa ngi seetaan di nuyu bépp soppeeb Gaydel Lo di sant bu baax a baax Serigne Saliou waaw xam naa nag biñ jugee ci suba ba léegi ñu ngi woon ci njàngum alxuraan bi comme niñ ko waxe won rek waye ñi ngi won ci njàngum xasaayit ñu ngi ci kar tamit di tuddu yonente bi sallallahu alayhi di tuddu di jang ay salatu ala nabi loolu lepp nak ak kaamil yi nga xam mom lañ doon jang lu jitu lool di sante daara yi alcorane yi nga xamante ni nii tamit am na def nañ ci ab liggéey bu am solo di sante ñi nga xamante ni nek nag génn nañ seen ñax def ci liggéey bi waye di sante sëñ Abdou Samad bu baax baax di ko ñaanal suñu borom kàttanal ko waaye di ñaanal suñu Muntaxa mu yàgg fi loolu tawé waaw ci ci suba ak léegi ñu ngi won ci añ yi ñu ngi won ci yu njëkk yi ñu ngi woon ci añ yi booba léegi ñu ànd liggéey bi di sant Noorun Xalaa Nooréni di sant waa dayratu Wakaan Xaqan di sant ñi nga xamante ne nii ñooy dëkkandoo di sant ñi nga xamante ni ñoo ànd liggéey bi ñëpp fu ne waaye jóge na fa ndax bu bu bu bu bu bu bu nee Serigne Mbacké Lo Gaye Del rek yaakaar naa lépp lépp lépp bu nee Serigne Mbacké Lo Gaye yaakaar naa ku ne xam na ko ci message bi nga xam ne mi ngi lancé waaye su fu ne soppe tamit jóge na fa waaw léegi li ñuy sant li ñuy sant nag mooy di di ko ñaanal suñu borom kàttanal ko ak di ñaanal way dawlu yi ak di ñi nga xamante ne ni ñoo fi bàyyeekoon te nekk ay dëkkandoo ànd ci liggéey bi nekkoon yàlla jël leen fi ñoo ñëpp dañoo boole ci bis bi ñaanal leen moo tax ñu ne dañuy def guddi yonente bi waaye dañ ci ñaanalaale way daw yi nga xam ne jigéen nañ fi ñu génn nañ fi ay tur sëñ Mara Gàkku ak yeneen yeneen nit yoo xamante ni bàyyeekoo nañ fi waaw waaw suñu yaay ji suñu yaay ji tamit ñu ngi ko ñaan suñu borom yërëm ko te xaaral gaañ te weefal suuf si kawam waaw booba léegi ñu nga liggéey bi gis nga soxna yi ñu ngi ci jàppee gis nga tamit suñu yaay yi ñu ngi ci jàppee waaye moom nit ñëpp la waaw ndax li neex li tax mu nekk nitu ñëpp muy message bi nga xam ne mu ngi ci di ko lancé ndax nit mën naa nekk foo xamante ne nii am na lu mu bëgg a wax nit mën naa nekk foo toll foo xamante ni bëgg naa gindiku nit mën naa ci mu xel waaye yàlla dimbali na ko ci système bi nga xam ne moo ngi si tey nit ñu bari ñu ngi ciy jariñu yaakaar naa loolu ku nekk yaa ngi ciy teg sa bët loolu nag fierté lañ koy def di ci sant yàlla bu baax a baax di ko ñaanal suñu borom kàttanal ko ba li mu yéene mu def ko kem na mu ko bëggee ku ne xam ne bi mu wootee bis bi bi mu wootee bis bi ba léegi yaakaar naa lu ci nekk ñëpp ñoo ko àndandoo amul kenn koo xamante ne nii bàyyi nañ la ci amul kenn koo xam ne nii teggi nga sa tànk ci liggéey bi waaw sant nag moom dañ koy def bu baax a baax sant sëñ Abdou Samad loolu dañ koy wax di ko waxaat ndax nu mu taxawee ci ñun. kan kan mooy sëñ Abdou Samad. sëñ Abdou Samad doomu Serigne Souhaïbou Mbacké ku ne xam na ko ci yoon wi moom daa bëgg koo xamante ni day napp na bi ci ci liggéeyal sëñ Tuubaa ku ne xam ne ko ni muy taxawee ci yoon wi képp koo xamante ne ni suñu relation ak moom suñu diggante ak moom li waral cant gi loolu li ñu koy laaj xaw na nay bari waaye li ci li ñu war a xam rek mooy su Abdou Samad suñu diggante ak moom muy ni suñu diggante ak sëriñ ak taalibe ndax képp kuy liggéey sëñ bi da gis mu woolu la conseil la waaye déglu la ca la nga nekk li gën a am solo muy sëñ bi nga xam ne dafa wàcc boppam ànd ak ñëpp bis bi yaakaar naa yëg mën naa wax ne biñ ko ko yëga léegi léegi amul lim ci deful kon sant nañ ko bu baax ñaanal ko di ñaanal suñu Muntaxa mu yàgg fi lool di wax sant nañ toutes les toutes les sénégalais sant nañ leen bu baax a baax ndax suñ baax waaw. soo amoon benn message booy bi ma koy kii muy di ko gën a soññewaat rek waaw donte moom matale na lu bari waaye yàlla rek moo yàlla rek moo mat dañuy sañ di wax waaye yàlla dimbali na ko ci domaine bi mu nekk. ku ne xam na ko kon li ma koy ñaanal mooy suñ borom kàttanal ko waaye li ma koy dolli muy sénégalais yi ñu ngi koy bàyyi xel kenn ni ñu ko waxee woon kon li mu fi mu teg tànkam rek mu ko bàyyi ndax nit ñi ñu ngi jariñu ci liggéey bi am na koo xamante ni sonn na bëgg na am loo xam ne bëgg na koo wax am na ci koo xam ne bëgg na loo xam ne mën na koo lijjanti waaye moom ay vidéo yi muy def di ci gindeeku loolu moo ci am solo waaw te man dama koy laaj bis ma ne ko vidéo yi ngay def lan mooy kii bi mu ne ma bëgg naa ku ci nekk tey ku ci nekk tey mu mbir muy rafet maanaam diggante nit ak nit yëpp muy rafet foofu la jublu ci système bi nga xam ne ci lay waxtaane waaw ba nga xam ne yenn saa day dugg fenn sax nit ñi ne wax ma ne ko lii nii mu ne ma man sama sama message fu ma mën a jaar ba sensibiliser nit ñi fu ma mën a jaar ba mu rafet danaa fa jaar danaa fa jaar ci domaine ba ba ma ma xam ne fa ko mën a waxee mu rafet ma naa ko naa ko def incha allah waaw kay jërëjëf. guddi Seydina Mouhamed gi sant yàlla sant Seydina naa sallallahu alayhi wa sallam tey ñaan bis bi yàlla nañ ko def ay màggali màggal ndax guddi Seydina Mouhamed moom. bépp mag bu koy taxawal dañ la ciy jàppale waxantuma laa xale buy doog a dugg àdduna ñuy ñaanal suñu doom yi fa ñu bëgg a yegg yàlla nañ fa yegg ndax tubaarkaal la gaydel kat dafa nekk ci koñ bi woote lu baax loo nga xamante ni lu neex la muy guddi Seydina Muhammad ku ne bëgg ko ku ne bëgg nga Seydina Muhammad sa xol bi ñuy ñaan ci yàlla ak yonente bi bis bii yàlla nañ ko def ay bisi bis di sant ñaari waajuram di sant yaayam ak papaam man nag yaayam sama genn wàll la bis bi dañ ciy dem ba jeex ñun ñëpp macha allah koo fi gis mu ñëw rek bis bee ko fi indi. bis bi taaru na tabe na lépp xéewale na macha allah lekk yi dara manqué wut dressé bi ci suba dara manqué wut suñu xale yi ñu leen di ñaanal yàlla nañ nekk magi ëllëg yàlla nañ nekk magi ëllëg sant gi ñuy sant Seydina Mohamed. yàlla na yokk ñu dund ba luñ ci def ren bu déwénee ñu def lu ko ëpp kontaan nañ suñu xol sedd na ñuy sant nag ay waajuram sant xale bi bu baax muy sëñ Lo sëriñ loo Gaydel Siré Khoudia Gaydel aale borom ndaam daara janga ndaam fas waa nga ndaam alxuraan janga ndaam kii borom maami aalimi borom maami farisi maam jum am matt xalimaa ko tax a jaal maam jum am dafa jàng alxuraan sëñ loo mooy gone gu am jom mooke moromam. suñu xalé koñ bi sha allah laf jam yal na yalla defal jam berne nak ngeen ko waajale tay ci bis ak yeen berne yan façon berne fa ma sha allah berne yi niñ ko waajale demb lañ commencé berne yi na reer nañ bu agn nañ ba suur def suñuy war masel yu bax ngon jot ñu defal suñuy beñe yu am jom defal suñuy dressé ci suba def suñuy laax yu bax agn yaangi ni ma sha allah dara manki wut te reer yi tamit macha allah ngoon gi day ñëw xale yeet hôtesse yi dafa jekk hôtesse yaa ngi ni macha allah bu xale yi defee ci suba gi maire yi def ci ngoon gi rek ñoom i seeni i ñuy ñaan rek bis bi yàlla na yegg ak jàmm sedd ak jàmm Seydina Mouhamed yàlla ak yonent bi tekki loxoom ba lu mu ci def reen bu déwénee mu am lu kawe njortam ñu ko ñaanal di ko sant wasalaam noo gisee woon bisu gaydeel bi. bis bi de ni ma ko gisee xanaa neex rek ndax gaydeel man moom ñoo bokk papa te wax dëgg de paase bëgguma bay béykat yi lu mu def du def ba ci suba sa ngoon te yëguma ko. gaydeel daal bisam bi ñu ngi koy ñaanal yàlla na gën a jëm kanam defoon nañ ko daaw yàlla na gën a jëm kanam daal yàlla jàppale ko ci ndax ku baax la ku ñu bëgg la ku dëgg la ku bëgg ay doomi baayam. ndax man mi ma ci rawati sax ndax du def dara ta taguma lu def lu ne man bañ na ko day mel ñun ay jaam lan sax man ak mom ta fekk na duñu do duñu jaam ñun ño bok ben pap ma ngi kay ñaanal da ci bis bi yalla nako yalla defal ta sax saxal ñu fi ak i waajuram ñoom ñëpp ñu dund ak jaam ak salam ta fekk ay dewe dewe ci jaam. wa bis bi da nga dañ ci du kontaan bu baax baax baax. ndax euh, gaydel day sunu rak di sunu lépp jox ñu cër lool ba tax kontaan nañ ci moom lool bis bi tamit wax dëgg yàlla kontaan nañ ci lool di ñaan yàlla mi nga xamante ni mooy sàmm doomu aadama sàmmal ñu ko bu baax a baax a baax ci barke Cheikhina Ahmadul Khadim waaw dëgg yàlla am nañ ci moom mbégte lool ndax euh, lii muy def nii dañ cee kontaan loolu ndax te dañ koy ndamoo te tamit dañ koy safoo ndax bari waa na ndaw ñoo xamante ñi ngi topp leneen wala ñi ngi ci leneen loo si neexut yàlla neexut suñu borom moom nag tey jii mi ngi jàllale loo xamante ni lu bëree baree baree bëri ci waxuma Sénégal ci àdduna bi mi ngi koy réglé kon bu ko suñ borom xiiree ci lii ci lu baax ci ci lu mel nii dañ koy ñaanal suñu borom defal ko tawfeex beneen bi tamit muy mu gën a góorlu mu gën a muñ ndax nit ki am na fooy toll da nga dégg lu nekk danga gis lu nekk waaye ngay muñ di jëllale ñu bokk muñ sax la ndax euh, des fois nit dana wax ne wala nit wax te du xam ne sax yéen ñaar yéen a bokk waaye kon loolu lépp euh, dañ koy delloo ji li nga xam ne moom la suñu borom suñu borom defal ko tawféex barke Cheikhna Ahmadou Khadim sàmmal ñu ko bu baax a baax. soo lan lay doon. waaw su ma amoon gaydel moom yaakaar naa fi mu toll mu dara la nga xamante ne luñ ko ndax tey jii kuy dem di dem dem ba taxawal lu mel nii kon am nañ ci moom yaakaar bu baaxa a baax a baax ndax tamit euh, am nañ ci yaakaar bu baax baax ndax euh, ndax ndax tey jii ndax tey ndax tey jii ndax tey ñu am ci moom yaakaar tey jii bi mu bi mu defee bis bii dafa xool ñi nga xamante ni tey di ñoom la nekkaloon démb mooy ay xaritam mooy ay maasam. ndax tay bo ñëwé tay bis bi da ngay contane ndax man ño bokk pap man tay ji da doog di ñëw bima ñëw fekk na dekk ndoy yëpp def def lepp ku ci mel suñu Assane jaay jaay kon koku am nañ ci mom yaakar baax baax baax diko ñaan suñu borom suñu borom defal ko tawfiq bu baax baax ci barke Cheikh Amadou Khadim. euh man jaar ma lay nuyu bu euh di ñaanal Gaindé Lo suñu borom defal ko jamm euh bis bi mu nekk tawfiq ci mom ndax xalé la mais. li muy wax am na solo ndax waxam ak jëfam moo tax nit ñi bëgg ko sopp ko te ndaw la nag waaye ndaw lu lu jar a jàppale la man maa ngi koy ñaanal suñu borom defal ko jàmm bis bi mu mu du ko féete du ko féete at yi at ñëpp du ko du ko wuy ñu ko ñaan dal contane nañ ñun wa koñ bi contane nañ ci moom lool di ko ñaanal suñu borom defal ko jamm di ñaanal ay wajurum suñu borom guddal seen fan ndax xalé la xalé bu bëggul bax la nak man ma ngi koy ñaanal wax deug yàlla ma ngi koy ñaanal ci bax ci bax ak Serigne Touba suñu borom defal ko lu kawé la ci limay wax. ngi si jàmm ça va ngi si jàmm. bisu benn bi mën nañu sa frère la wala sa nijaay la wala. si salaamaaleykum wa rahmatulah maa ngi nuyu ñi fi teew ñëpp di nuyu famille bi yëpp di nuyu xarit yi mbokk ànd am jàmm ah. di leen wax kontaan nañ bu baax aussi vraiment di di di remercier Gaydel aussi ci bés bi parce que lu am solo la def ki si prophète moom salaahu alayhi wa salaam moom kooku moom wax dëgg yàlla moom fierté la si si famille bi daal wax dëgg yàlla ñu koy ñaan yàlla suñu borom yàlla defal ko mu nekk ay ay centaine édition incha allah yàlla mën na ko yàlla na ko yàlla def vaccin amal vraiment kontaan nañ ci moom bu baax fierté la si famille bi quoi ñu ngi koy ñaanal yàlla suñu borom defal ko ndam bu kawe kawe kawe kawe si ñoo doon vaccin Mohamed kontaan nañ aussi di leen remercier yéen presse bu baax a baax a baax merci beaucoup. soo amoon benn message boo koy jàllale

waa kàbb moom la sëñ Mourou Moussa waxoon Cheikh Abdoulaye na nga dem kàbb gay taxaw ñu waa kàbb gay ay góor ay géer lañ nit ñu baax la sëñ Abdoulaye dugg fa foofee te kàbb gay nit sëñ Abdoulaye sëñ Souhaïbou foo tudd njabootam tudd waa kàbb gay kon nag kontaan nañ ci soxna maam Boussa Gueye ak délégation bi mu àndal léegi nag jànkati ne yaa ngi toog ñëpp a ngi toog. gàngal bi ngi dugusi si mulku ladi li jaada bil qur'ani sayyarana li mawridu zamani mulku ladi li jaada bil qur'ani sayyarana li mawridu zamani mulku ladi سيرنا في مورد الزمان ملك الذي te yaakaar naa ñi nga xam ne ñu ngi suivre samay image di suivre ay image am man ak moom benn lañu amuñu différence amuñu xàjjoo bañ nañ ko ba dañuy wax ne sax yéen ñaar yéen a bokk benn liggéey boo leen di liggéey li tax mu tuddee boppam kenn bonul loolu mbooloo mi mën nañ koo bañ a xam. dëgg la waaye man sama jëmm. Ah. man xam naa kan mooy Cheikh Ibrahim ci sama diggante ak moom ci liggéey bu am solo bi nga xam ne maak moom seq nañ ko. mu anda ak xaritam senkara sama jëwriñ jooju ak mbollem delegation bi nga xamne ne na ak ñom buma limé rek damay joom ndax euh, man ak moom mënuñoo mënuñu fi cheikh ibrahim waaw mënuñu koo waxé fi yaakaar naa ñi xam ñom Cheikh Modou Kara ñi xam nañ duma jug mukk ci kërëm ak suñu jëwriñ ji lepp lu mu nekk Cheikh Ibrahim dama cey bolé maa nga ca kon nak lolu fier la waye sante la tayit mom day sama bay ndax sama mam gi jur sama way jur bu góor ak baayam ñoo bokk benn baay muy maam Souley Gaye moom sama baay la kon yaakaar naa ne mbokk bu gën a jege googu amut yaakaar naa kon jéggi na loolu. Cheikh Issa Diène di maamam. Cheikh Issa Diène di maamam te bàyyi Souley day sama maam ma di ko tooñ waaye ku ne xam na liggéey bu am solo bi nga xam ne liggéeyal na ko yoonu murit ku ne xam na liggéey bu am solo bi nga xam ne Baye Souley liggéeyal na ko yoonu lislaam yaakaar naa loolu kenn dootu ko werenteeti di santaat bu baax a baax yitim samay jur yi nga xam ne ñoo ma sukk jur ci yar biñ ma yar ci yóbbum ma jànge ci tàggat ma ci ay valeur mën naa wax ne tey li nekk si man du man waaye ñi de ñi ko def ci man ñoom la ndax euh, gëm naa ne amaana mën naa am sax ab yar bariwuma ko waaye li ma ci amakus néew ñoo ko def ci man jàngal nañ ma lan mooy ak tabe jàngal nañ ma nan lay jëfee nit waaye jàngal nañ ma it ak yar yar boobu it su ma ko waxee mën naa wax ne duma ma ci sori ndax man wax naa ko ma ne sama wayjur bu góor dama koo sopp dama koo bëgg ndax man damaa am yëg ci moom dama am bëgg ci moom man damaa gis ni ni ni mu sonnee ci man ak taxawaay bi nga xam ne am na ko ci man man man moom moom moom xam na ma xam mësta xàddi ci man mësta daw ci man responsabilité bi yëpp da jël ci sama jëmm nii yéene ji ma am ci moom itam xam na ko suñu boroom xam na ko waaye ku ko bëgg laa ku ko sopp laa ku am yitim yéene laa ci moom moom sama waajur bu góor waaye sama yaay yitim taxawaay bu am solo la ci man la am solo ci man ak ñi nga xam ne ñoom la séqal ndax wax dëgg yàlla tey euh, mën naa wax ne jooyuñ dara dafa reyante addunaam yëpp ngir ak njabootam mosul toog mosul xaddi mosul daw lépp loo xam ne suñu ngi moroom am nañ ko ci biñ nekkee tout tànk taxaw na temb ci def loola moom sama waajur bu jigéen kon man aw ma lu leen ëpp aw ma lu leen sut di sant it samay mag bu baax te di leen gërëm ndax cant gi waaye sant moom doy na sant waaye samay mag xam nañ samay doomu baay man man cofeel gu rëy laa am ci samay doomu baay waaw li ma leen ëmbal man yàlla rek laa koy seedeel tey it man man xàmmewu ma leen ak ki ma bokkal day ak baay yàlla xam na ko bëgg laa leen def ci sama xol yéene laa am ci ñoom taxawaay bu am solo it laa fas yéenee am ci ñoom ñoom ñi nga xam ne ñooy samay doomu baay ak ñeneen ak ñeneen ñii dëkk ci koñ bi di leen sant bu baax ñi dëkk ci koñ bi maa ngi leen di sant de suñu maire yi sama xarit yi nga xam ne ñoom laay àndal depuis ba ma nekkee xale bu leen neexoon ñu ne ñoo mat fekk waaye dañoo wàccee seen bopp ngir bis bi jag kon maa ngi leen di sant di leen gërëm di leen ñaanal yàlla suñu borom mu yàggal leen fi taxawaay bi rafet na yéen ñëpp di sant Serigne naa Mbacké mi nga xam ne ibnu Serigne Bass mu Cheikh Abdou Lahad moom ñoo bokk dëkk koñ bi ndax kóllëre des koy sàmm ñun moom lañ am ñun moom lañ am ndax mooy suñu lépp moom sëñ Cheikhouna dafa oyof rek Mbacké waaye kenn gënu la ñu ngi lay ñaanal nga yàgg fi loolu te wér Serigne Cheikhouna Thiam ñu ngi lay sant yooyu ci sa taxawaay ak euh, teewaay bi sant nañ ci bu wér a wér gërëm nañ dëgg yàlla jóge ak coono yi waaye teewul yaa ngi ñëw ci bis bi Cheikh Abdoulahat Sylla maa ngi koy siyaare bu baax a baax a baax di ko sant bu wér moom it ci taxawaay bi nga xam ne am na ko ñun ñoo bokk koñ bi chaque jour ñooy ànd ñooy nekk yàlla xam na ko moom it kenn gënu koo yéeme waaye dafa oyof rek waaw Sylla mu ngi lay ñaanal nga yàgg fi loolu te di sant bu baax suñu jëwriñ yi maa ngi siyaare cuun boutique moom sama xarit la. ku la bëgg wax dëgg yàlla man man man cuun moom sama waay la. wax dëgg yàlla maa ngi lay ñaanal yàlla nga yàgg fi loolu te ànd ak wér. wallaay gis nañ bu baax taxawaay bi sëñ Abibou Dieng bi nga xam ne moom it boobu ba léegi ñu ngi ci liggéey bi ak Serigne Am Gajaga ñu ngi koy bu baax moom it boobu ba léegi ñëw ànd liggéey bi ak mboolem ñi nga xam ne ñu ngi fi ak Serigne Massamba Dione mi nga xam ne bis bu yàlla sàkk ñooy ànd liggéey. mukk ci di ko ziar ak di ko ñaanal yàlla ak presse bi nga xam ne ñoo jógee fu ne ngir ñëw ànd ak ñun bis bi ñi ñëw ak ñi ñëwagut ak ñi amoon yéene ñëw ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm ndax tey bu Gaydel eggee fenn ci turam presse bii la ñoo koy dalal ñooy waxtaan ak moom lu bëree bari ñoom la koy àndal su wootee bis itam ñoom ñoo cay njëkk kon ñu ngi leen di sant di leen gërëm macha allah rabbi tey nag dañoo jëloon décision ngir waxtaan ak yéen waaye amaana bis bi xoj nañu tayit yaakar yaakaar ne mi ngi commencé goudi te suñu mbokk jankat yi ñu ngi fi Serigne mamour gis nañ ko Serigne fallu tu am nañ te gisaguma len ñu ngi fi kon yaakar naa ne du meuna du meuna ki kii bu ñu dégal bu ñu dugalee cérémonie bi bu paré rek dañuy dal di jox ñi nga xam ñoy programme bi bu ko défé ñu wëyel ak jàngkat yi ma sha allah rabbi di santat yalla bu wëré wër nak di santat yalla bu baaxa baax ci bisub rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bu ñu waxee nag di santaat yàlla ci bisub yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tey tem bi nga xam ne moom lañ jëloon ngir waxtaanee ko ñu koy wax ashabru te mooy muñ ndax ku ne xam na taxawaay bi nga xam ne nit war na ko am ci diggante ak boppam waaye ci diggante yow ak muñ ndax damay wax ne àdduna lépp loo xam ne nit jariñoo na ko rek lay tax mu mën koo réussir mooy ak muñ bu ko nit ki ñàkkee it ñàkk na ko ki nga xam ne it moom lañ defal bis bi te mooy sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam mën naa ne lim daj ñun duñ ko mas a daj wala sax xaaj bi moom muhammad sallallahu alayhi wa sallam daana génn ñu di ko yuuxoo daana génn ñu di ko ŋàññi bis mu dem ba nga xam sax ay yéreem dafa mujj jeex amul lenn loo xam sol na ba bis booba am ku doon ñëw ngir rafle di ko yére mu ne ko na dem ba baneen yoon mu yónniwaat ab xale waaye lam ko nam ko waxee mu mujj mu jox ko yére ba keroog bilaal ba mu noddee gisul rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam daal di ñëw ba ñu paree ñu dem wax ak ñu dem di wax ak yonte bi sallallahu alayhi mu ne leen ñàkk yére bu ma sol moo tax ñëw ma ci ci ci bërëb ba kon xam ngeen ne kooku ak tedd gi mu toddoon ak ni mu meloon waaye gis ngeen la nga xam ne moo ko doon fekk te mooy gën ngi mbindeef am na bis Omar ibnul Xataab fekk ko ci basan mu tëdd ba yaram bi sax dafa tëggan nga xam ne boo ko xoolee daanaka maanaam toogaay gi metti na ci moom alayhi wa sallam waaye keroog Omar dafa jooy Omar dafa jooy mu ne ko yow yonent bi yàlla bi ana lan ngay jooy yow sidna yow Omar ana lan ngay jooy mu daal ne ko damaa gis ne buur yi nga xam ne yàlla jox na leen àddina jox leen i teraanga te yow ngay gën gi mindeef ngay tëdd ci basan gi moo tax may jooy mu ne ko yàlla de su doon ne maanaam euh, jullit ñi su doon ne àdduna am na maanaam ñoo ko moom kon yéefar yi duñ ci am lu toll ne weñ maanaam lu toll ne weñ duñ ko ci am nga xam ne ñun yàlla dencaluñ àddina waaye àllaaxira la ñu dencal te la ca jiitu góor góorgóorlu sallallahu alayhi wa sallam nekk ci biir kaaba gi kaaba googu mu nekkoon am na ku ñëw jël baat bi xerandi ko xerandi ku méttee métti ba abu Aboubacar daf doon jooy naan ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi allah wa xad jaakum bil baynaati min rabbikum ndax da ngeen di rey koo xam ne baa ngeen di faagaagal koo xam ne waxu leen leen lu yàlla mooy sama borom maanaam yónnent bi nga xam ne yàlla da koo yónni ngir mu gindi leen tey kooku leen doon jéem di toroxal nga xam ne keroog yooyu métti la ko def am na bis rasulullahi sallallahu alayhi wa di dem këram ñu boole kook ay dof nga xam ne dañ koy xëpp suuf ba ba ba kanam gi sax dootoo ko xàmmeti te mooy ngën gi mbindeef keroog ba mu ñëwee doom ji day rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam waaye boole koog jooy yu méttee métti rasulullahi naan ko yow sama doom bul jooy ndax yàlla day ànd na ak sa baay te dina aar sa baay am na bis Abu Sufyaan fekk ko mu toog ci wetu Safaa di di ñaan mu ñëw fekk foo di ko ŋàññi di ko ŋàññi moom rasulullahi tontu ko ba demee ba yëfi soof ko sax dafa jël xeer sànni ko ko ba bopp bi di sotti dareet te kooku moom moo ñu gën moo tax yàlla sàkkuñu lu yàlla bind ci leeram la ko bindee suñu waxee muñ bu ñuy wax te mu muñ kon yaakaar naa ne duñ ci jéggi rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ndax moom léppam da koo muñ bu ñu tuddee muñ itam dinañ ci indi ay misaal yu gàtt gàtt gàtt ndax ku ne xam na ku xam na kii nga xam ne yàlla alak ngir ñun wa is qaala rabbuka lil malaikati inni xaaliqun basharan min salsalin min amain masnuunin fa isa sawaytuhu wa nafaxtu fihi min ruuhi faqahu lahu fa sajada al malaikatu kulluhum ajmaun ku ne xam na iblis lépp lu ko yàlla teg ñun doomu aadama yi moo tax mu teg ko ko waaye iblis moomu fi mu ne li muy doy waar doy waar keroog ba nga xamee ne suñu borom wax na ko ba suñu borom wax na ba esqul naa li malaikati sujudu li aadama fa sajadu ila iblisa iblis qaala asjudu liman xalaqta tiinan qaala araaytaka haasa allasi karramta alayya lay na axartani ila yawmi alqiyama la axtanikanna surriyatahu illa xalilan iblis moom pare na ngir taxaw temb ci ne moom du sujjootal jaamub yàlla boobu nga xam ne yàlla da koo sàkk sàkk gi mu ko sàkk mooy mu sujjoot ñu sujjootal ko te sujjootal gën doon sujjootal suñu maam aadama du maam aadama lañ doon sujjootal waaye leer gi nekk ci moom lañ doon sujjootal te mooy leer bu rasulullahi bi sallallahu alayhi wa sallam keroog ba nga xam yi ni iblis taxaw na temm ci rëy rëylu ci ka defar te man moo may wàcceel soxna mu am cër mu am ci man cër bu kawe am ci man itam cër bu am doole cër boo xam ne tey nit ñëpp yeyoo ngir nit ñi xam ko mooy soxna maam bu sogay mi nga xam ne bis bi moom lañ ko marraine. taxawu ci man masul dañ di taxawu ci man. dañuy ñaan yàlla rek. mais dañuy ñaan yàlla rek. yàlla mi am fay. yàlla mi am kàttan. mi am kàttan. mi am doole. mais mu fayal ma bu sogay. mën wax ne. mais mën naa wax ni. lu bari. lu bari. mbooloo mi sax mën nañ koo bañ a xam. mbooloo mi mën nañ koo bañ a xam. sama waajur bu góor li mu wax léegi. nee sama waajur bu góor li mu wax léegi. ne man dëkkuma tuubaa ne man dëkkuma Touba. Njaareem laa dëkk. Njaareem laa dëkk. waaye maam Njaga ma yar. maam Njaga ma moo def li nekk ci man. moo def lu nekk ci man. keroog ba may ñëw Njaareem. keroog ba may ñëw Njaareem. xaw ma dara. xaw ma dara. aw ma dara. aw ma dara. moo ma tette. moo ma tette. moo ma taxaw. moo ma taxaw. tey ba may dem di. di de di créer ay jeunes. tey ba ma dem di créer ay jeunes. ngir ñuy liggéey ci man. ngir ñuy liggéey ci man. di fa taxawal. di fa taxawal ay bitik. ay bitik. loolu yëpp ci bàyyam bu baax. nee loolu yëpp ci bàyyam bu baax. nee na ma it de su bàyyi génn tukki. nee na su bàyyi njëkk a masaana génn tukki. danaan ko kër gaangoo. danaan ko kër gaangoo. danaan ko kër gaangoo. lépp loo xam ne. lépp loo xam ne. mu ngi fi. mu ngi fi. mangoo. mangoo. buso mii nag. ne bu sa nag. bi ma nekkee tuut tànk. bi ma nekkee tuut tànk. la sama waajur wax ne. la sama waajur wax ni. Bousso de nee nee na. sab cër moom. sab cër moom moo ko moom. moo ko moom. waaye it. nee waaye maanaam man dama caa fekk. nee loolu dama caa fekk. ndax maam moom ñoo bokk. nee ñoo bokk. bokk lépp yi. ñoo bokk lépp. amuñu différence. amuñu différence. amuñu. amuñu séparation séparation. ñu ngi ñaan rek. nee kon ñu ngi ñaan. yàlla mi am fay. am fay. mu fayal ma leen. nee mu fayal ma leen. ak ñi ma ñëpp. sant nañ leen. gërëm nañ leen. bi mu ñëw nag ànd naa ki. Ndeye Seck. baal ma wax rek. li ñu wax lépp la. nee li wax lépp dëgg la. tënk nañ wax jëpp. nañ wax jëpp. Euh, euh, ndax Soda Gueye mi jur taalaloo. ndax Soda Gueye mi jur ak mi jur sama baay Njaga Gueye. mi sama baay Njaga Gueye. ñoo bokk mbay ak baay. man bi ma juddoo at mi ma juddoo. man at ma juddoo. ci la baay taala ñëwee njaareem. sama baay yore ko. sama baay yore ko. njaboot gu bari daanaka fa lañ juddoo. nee njaboot gu bari fa lañ juddoo. dara ñaawut. nee dara ñaawut. sama baay bu masaana tukki sax. sama baay bu ma koy xëy di jox. nee njëgu mburu gi bàyyi taala loo mii moo ma koy jox. barke Ahmadou Bamba barke bi kiy ju bi kiy juddoo. nee bi kay del mi juddoo. daanaka bi mu judd man laa bi mu judd daanaka ki laa ñëwee Touba nee na gone la wax léegi mag la nag. nee bi may ñëw Touba di sëy si la judd. baay taala ni ma gaydeel mi sama fekke ak sama wute nee yaay ab jigéenam yow laa ko jox waaye yaay jigéen bu mat jigéen nee sant sama mbokk ndax bu ma jógee ñëpp jóg nañ sama bàjjan sama rakk ma bokkal baay ak samay xarit jóge nañ njaareem à Dakar ñoom ñëpp ànd ak man nee ñi ñëpp Dakar ak lañ jógee sa bokk yu ñaaw Dakar lañ ak man jërë ngeen jëf ñoo ko sopp ñoo ko bëgg yàlla xam na ko di ñaan yàlla nga yàgg fi ci ànd wér nee na ko ñaanal mu yëkkati fi ay kàddu waaye nee na bii sëñ Saalum mii di wax sama xel daa dem ci loolu ma ne lii nag mooy dëgg-dëggi leer bis lépp leer la barke rasulullahi

léeg-léeg na nga yor sab loxo. léeg-léeg na nga yor sab loxo. di xool fan lay wàcce. di fanu lay wàcce. ndax boo jiitlanteeg ñoom. ndax boo jiitlanteeg ñoom. lépp loo waddale. lépp loo waddale. mën nañ koo far jox la. mën nañ koo far jox la. waaye boo waddalee sa jëmm. waaye boo waddalee da koy jéggi jàll. kon àdduna li muy rëy rëy. ji li muy yaatu yaatu. yoonu murid li muy rëy rëy ku ne sa bopp rek nga am sa bopp boobu nga nag na nga fexe ba defar ko ci biir ak ci biti fexe ba doon koo xam ni ni la nit ñi gisee di la bëgg nga defar sa jikko ba bu mu jaxasoo yow gën laa naw te sëriñ bi nee na loolu la mu doon taamu ci yow. li mu doon taamu ci yow ngay dal. ci seen ga. nee ci seen ga. lu ko raw. ci jikko ji rafet. akum baax. akum taalibe. nee la fekk ci yow. nee mi ngi ñaan loolu yàlla na yàgg lool. waxoon na ni nañu tëjee. kàddu soññee. yoo xam ni sëriñ bi waxoon na ni jotaay lu mu rëy rëy bu ngeen fa dajee ba jóg te wu leen lu leen di jariñ ci àdduna lu leen di jariñ ci bàmmeel ne jotaay boobee jotaayu perte la nee sëriñ bi nee na nanu góorgóorlu ci li nu fi andi te bàyyi nu fi te loolu weesu jaamu yàlla nan góorgóorlu ci liggéeyal sëriñ bi te fonk sunu taalibe nan góorgóorlu ci liggéey ndax liggéeykat mooy tax nga mënal sa bopp. moo tax ngay mën a dimbali képp ku la yaakaar nee sëñ bi nee kon kàddu yooyu nee ci turu kilifa yi ma andal mu jóge ci sunu kilifa loolu la sëñ bi woon ni na ngeen ko wax bu ngeen demee ca mbooloo ma nee gënoon naa mat gënoon naa jot waaye matatik rek la ak mat jataayu ki ñu yónni ki ñu yónni ne loolu rek moo ko waral waaye fa ak cant tàmbalee sëriñ bi tàmbalee na fa boole ko ngërëm lu rëy lu ci ak xolam muy ni mi sant xam ni nitama lu defal gaydeel sëriñ Abdou Samad nga ko defal ne lepp lo xamni bu ko way defit ne sa yëpp sa nga ko def ne kon japp na ni bis bi lepp lu ci way def ak coono bu ci way daj bu ci ak cant waré sëñ Abdou Samad la war mom sëñ Abdou neul non la ko yegge kon ni nga and ak ñun lepp di sant ñepp di gërem ñepp nee di ñaan yàlla faj aajo yëpp nee di ñaan ñu fekk ko ay déwéni déen wasalaam mbàkke da ngaa baax sëñ Abdou Samad ku baax la ku man itam la gaydal daan kontaan na waaye ñi nga fekk ñëpp teel bi sëñ Tuubaa lañ xam nañ ni sëñ Abdou Samad ko ñor ñoom ñii di njaboot sëñ Abdou Samatum sëñ Seebu nee matal nan jataay bi nee wax dëgg yàlla nee sëñ Abdou Samad bu fi nekkoon ñëwoon toog fii mais mënuloo paase lii rek nee sëñ Amadou seen teew gii ngeen teew mel na ni sëñ Abdou Samad Cheikh moo fi teew nee man am naa ci lu ma wóor nee bu dul woon loolu nee sëñ Abdou Samad dana ñëw nee barki démb rek nee nag wi ngeen gis wu mag woowu nga xam ni def na ay bisi bis nee nag woowu sëñ Abdou Samad moo ma jox ne ma defal ma ko ci bis bi nee buy def dara. buñ ko buñ ko wanee benn. buñ ko wanee benn. danaan boobu daa tuuti. danaan boobu daa tuuti. xoolalaat ma jikkoo ma. ndeysaan. ngir bëgg fonk gim na fonk rek te sëñ Tuubaa tax. mais njaboot tamit. noonu la ñu mel ci man moo tax ñoom ñëpp ñu am yéene ñëw fii. moo tax moom. lu ma mën a nekk. ak fu ma mën a nekk. mais bu ma yëkkatee. du ma ko yemale dara ndigalam. mais ndigalu sa baay rek lay déglu sa ñoom sa mat. gaydal jëf avant ñu ñëw nga yëkkati woon kàddu yi kon buñ toogee nga waxaat ko dëgg la te sëñ Abdou Samad ku bëgg sëñ Touba da ko bëgg yitteem sëñ Touba wane sëñ Touba moo tax dong yi bëgg ko moo tax ñëpp ñëw nañu ànd ak yow bis bi mais li muy liggéey te xam nit ñi xamuñu ko nee moo ëpp fuuf li nit ñi xam nee mosumaa toog ci keppaaru sëñ Abdou Samad billaahi gisuma ku toog andi fa soxlaam. andi fa soxlaam. te da koy faj. nee sa ñoom somat ko andi sa soxla mu faj soxla sax. maanaam xàmmewul gone. xàmmewul bu toogee ca keppaaram nee bu toogee ca keppaaram gee. la muy génnee la muy génnee. kenn xamul lu muy nit day ñëw. nee nit day ñëw. aw ma aw ma liggéey. aw ma liggéey. ñaata moo koy kii. ay waay sëñ Mohamed. da ngaa baax rek. jikko sëñ sama ñëpp xam. nga taxawaay boobu. ne taxawaay boobu. ñun njabootu Serigne Touba ñun njabootu Serigne Touba gi. xam nañ ko xam nañ ko. te nag lu jafe la. te loolu lu jafe la. dafa jege taalibe yi. ne dafa jege taalibe na noo jafe de. waaye saa yu ngoon jotee. waaye saa yu ngoon jotee. boo demee ca keppaaram nga fekk ko fa. man moom day sama péete. day sama péete. mais sama péete sama. loolu la yàlla dogal jërëjëf mais soo waa am na ñoo xam ne dañ ma koo tooñee ci kilifa yi kilifa dañu am ma sañoon samat rek man nangu naa par rapport waay piite ayut féetale sañoon samat ba mu neex maa wax keneen ah sëñ bi jërëjëf nag sama yaay xàmmee nañ la ah ñëw na ak Tamsir ñoom ñëpp di géwali sëñ Bamba loo wax ci gaydel ñu jox jànkat yi nag dama ne gaydel maama moo jinne beneen mi toog maamam moo jàngaloon jinne omarum ndaam ak maxtaarum ndaam ndaami seen xet la ñëwee seen bàyyi abubakar ko jur nismi ko jur saamaane ko jur suuf dio ko jur déedéet dama bëgg nga xool ma les yeux dans les yeux Cheikh Mbacke déedéet ku lay jaay tukki bi sori nekk Seydina Mohamed nuyu na la Seydina Mohamed la yàlla yónni bi daloo sana bagay aliloo sana bagay la njox xuju Dramé ñoom ja Balla xuju Dramé ak Maxtar xuju Dramé ak Mbargaan xuju Dramé jox ko sonu xuju kumba sëy ca ngeen sëy ñam ja sira xuju kumba muy sa maam yàlla xuju kumba sa dara xuju kumba sa falo xujukuma sa maam gaydel xujukuma sa maam ndaak marema xëri maam pend buye amin tayela saxeer fatma ndaaga ma sama gàtt ndaak ma sama gàtt ndaaga jur mor jànnam jox ko aminte ñaan ñoom ci soxna loo Jóob jox ko sëriñ Cheikh Mbacke gaynde fatma ñoom ci sëriñ Mbacke soxna loo borom day fat bay laa Cheikh ma gi doon xëri loo gaydel loo borom daam ma badil la di li jaada القرآن سيرنا مولد زمان ملك الذي لي جعل بالقرآن سيرنا مولد زمان ملك الذي لي جعل بالقرآن سيرنا مولد زمان ملك الذي جعل waaw kay da lay wax kay moo koy taal sayyana li mawrida zamani kay mën na sëriñ bi di xaar ya fa ko lépp ndax sëriñ bi lay déglu sam daal salaam la bis ñëpp di baax maa ngi Cheikh Samba ah Cheikh Samba maa ko yóbbu